هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآباء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض والكافر ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq di wax mbaa yéen a ngi ci jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit ñu amaat mbégteeg kontaan te ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quran comme ni ñu koy defee bi ñu commencé woor ba léegi. xam ngeen ne tey la suñu fukki fan fukkeelu fan ak juróom ci shahru ramadaanal mubaarak tey la ñu xaajal weer bi yàlla ñu yàlla may ñu mottali ko ci jàmm comme ni ñu ko commencé yàlla yërëmal ñu suñu way dawli yàlla defal ñu ci jàmm. tey ñu ngi ñëwaat ak yéen ci saar bu bees muy suratul mudathir suratul mudathir ak suratul mudammil booy xool danga naan ñaari saar yi presque benn la ndax mudathir moom mooy mudammil mudammil moom mooy mudathir dañ naan mudammil mooy ki nga xamante ni dafa sàngu mbalaan yoo xam ne yu diis la jël beneen mbalaan boo xam ne danga ko teg ci sa kaw yére bi nga sol sàngoo ko comme bu ñu doon exemple dañu naan mel ni ku jël mbaaj ji sàngoo ko mudathir nag mooy ki nga xam ne yére bi mu sol ci la muuree kanamam wala ci la sàngoo loolu mooy farq diggante muzammil ak mudathir waaye daal li si munti xew benn sàngaay bi mën na koo doon wala mu sàngoo yére bi fee mu sàngoo beneen balaan waaye yàlla subhanahu wa taala saar bi mi ngi ci wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax comme li mu ko waxoon ci muzammil jugal tëdd jugal jota léegi nag tëdd moom jeex na léegi da ngay waaraate laabal sa bopp daal di nag continuer nag di défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi bi nga xam ñi nga xam ne ñooy naafeq yeeg ñooñu bi ñu ko commencé di xalaat ci mbiru yonent bi nan la ñuy defee fexee ba daaneel ko yàlla subhanahu wa taala daal di koy tontul waaye défendre ko ci saar bi di sootu mudassir bismillahi rahmaani rahim ci turu yàlla la ñuy commencé suñuy wax ak suñuy jëf yàlla mi nga xam ne mooy yërëm mbooleem mbindeef yi ci àdduna waaye mooy mu yërëm képp koo xam ne danga ko gëm ëllëg yowmal xiyaam yàlla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saar ci saar bii naan ko lan yaa ayyuhal mudaththir ee yow aji sàngu ji yow mi nga xam ne dangaa tëdd jël say yére sàngoo ko xum fa anzir jugal nga waaraate jugal nga dem ci waa màkka nga ne leen nañu jaamu yàlla suñ ko defee dem àjjana nga ne leen nañ bàyyi xëram suñ ko deful dinañ dem fi nga xamante ne moom mooy safara mu ne ko wa rabbaka fa kabbir màggalal sa boroom sa boroom nag na nga ko màggal ba nga xam ne moo gën a màgg lépp xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi wax yi bi di commencé bi ko yàlla di door a yónni booba ñoom waa màkk xamuñu woon ne yàlla kenn la ñoom liñ daan màggal mooy seeni xéram moom lañ daan jaamu moom lañ daan màggal bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ne ko nag wa rabbaka fa kabbir màggalal sa boroom nga wax leen ñu màggal seen boroom ñu xam ne benn buur moo am muy yàlla kenn la ñu war a màggal muy yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xamante ne nii kenn du ko bokkaale kenn wala dara nekk na ku sell ci lépp loo xam ne bokkaale la ak lu mel ni moom mu ne ko wa siyaabaka fa tahir say yére na nga ko laabal dafa am yenn riwaay yoo xam dañ ni arab yi dañ daan sol yére di ko buubal da daan buubu ci suuf salte beeg yëpp mën na mën na cee taq yàlla ne ko nag say yére na nga ko laabal yent bi sallallahu alayhi wasallam jël ay yéreem di ko sol bu koy sol da koy yemale ba ci buy demee bay jub dajoor bi wala ci bu paasee bu paasee oom bi tuuti kii bi yeel bi tuuti te du egg si dajoor bi dinañ mu rafet lool ba nga xamante ni ñëpp moom lañ doon soloo te xam nga ne loolu mooy sunna sunna ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu daan soloo mooy ay yéreem daawul wàcc di buubu ba ci suuf waaye danaan ñëw ba jub dajoor bi mooy booy jàpp fi muy yem mu daal di koy yemale foofu waaye daawul muur li nga xamante ni moom mooy dajoor bi yàlla ne ko war yaabaka fa tahir sa yére na nga ko laabal am na ñoo xam ne sax dañ naan sa yére na nga ko laabal mooy laabalal sa jëmm laabal sa bopp ci shirk ak ci bokkaale laabalal sa bopp ci lépp loo xamante ne ni moom mooy jaamu yàlla mbokk yi xam ngeen ni ñaari façon yére moo am saw bu léeg-léeg dañ koy tuddee yére léeg-léeg dañ koy tuddee imaan mën naa nekk mbubbum gëm yàlla mën naa nekk mbubb bi nga xam ne tamit dañ koy sol mu nekk loo xam ne lu jot la muy mbubb boo xamante ne mooy comme yi ñuy sol mën naa nekk tamit sawbul ixlaas wala yeneen yu mel noonu mën na koo doon waaye yàlla daal nee na ko wa siyaabaka wa siyaabaka fa tahir say yére moom na nga ko laabal ba du am sa sobe war rujuza fahjur yàlla na ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii nga xamante ne mooy xërëm yii nga xam ne moom moom la waa màkka di jaamu nanga ko gàddaay kon booy xool yàlla bi subhanahu wa taala yonent bi lay waxal waaye ñëpp la ci namoon booba temps ndaxte xam nga ni xërëm yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam musu ko jaamu kon bu fekkee yàlla wax na loolu rek li mu ci namm mooy yonent bi lay waxal waaye tamit day wax ak waa màkk yëpp ne nañu bàyyi li nga xam ne mooy jaamu xërëm ni ko arab yi waxee rek iyyaka aani wasma'i ya jaarati yow laay waxal waaye sama dëkkandoo bi yow déglul ci nga bokk kon yàlla ne ko war rujuza fahjur bàkkaar moom ak li nga xamante ni moom mooy ay xërëm ak lañ ñu ko niñ ko daan jaamoo na nga ko gàddaay yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko sax jegeeti mu ne ko wala tam nun tas tastaksir mu ne ko tamit su fekkente ne dangay maye dangay joxe bu ko bu ko baril bul yaakaar ni li nga joxe bari na lool ba naw ko déedéet wala ngay ñax ñaxtu ci li ngay joxe joxe ba pare di ko ñaxtu mu ne ko déedéet bul def loolu boo may boo joxee rek fàtteel li nga joxe ñun yàlla dinañ la jox lu ëpp li nga xam ne moom nga joxe bul jox kenn lenn pour bëgg ci dara bul jox kenn pour bëgg si intérêt wala ak cant wala ak ngërëm wala nga joxe ba pare naan su ma yëgoon du ma ko def déedéet wala tam nun bul nekk koo xam ne dangay ñaaxaat da ngay da ngay mépp jàmbatu ginnaaw ba nga joxee ba pare tas taksir yàlla ne ko wali rabbika fasbir muñal gis nga jaamu yàlla danga koy muñ ndax dafa metti daaw bi ngay bi ngay woote ci yoonu yàlla danga ciy muñ ndax dafa metti moo tax mu ne ko wali rabbika ci sa yoonu borom day fasbir na nga nekk koo xamante ni dangay muñ muñ ci ndigal yi ak tere yi waaye muñ tamit ci li nga xamante ni moom la la waa màkka di teg mu ne léegi mu jeex fa ida nuqira fi naaquuri fa dalika yawma izin yawmun asir mu ne bu fekkente ne wal nañ bëfta bi ki nga xamante ni mooy malaaka bi nga xam ne wal na bëfta ñaareel bi bu ko walee ba nga xamante ni ñëpp dekki nañ génn ci seeni bàmmeel yàlla subhaanahu wa taala mu ne fa dalika yawmun asir mu ne bisub keroog day bis bu jafe lay doon bis bu jafe nag bu ko yàlla waxee mooy xam neel ni ci ñan lay jafe ci ñi nga xamante ne dañoo weddi yàlla alal kaafirina gayru yasir mu ne ci yéefér yi du yomb yàlla mu ne keroog yombal xiyaam du yomb ci yéefér yi kon loolu li nga ciy dégg ne kon mën naa yomb si jullit ñi ak ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla kon soo gëmee yàlla di def ay ndigalam di bàyyi ay tereem yombal xiyaam mën naa yomb ci yow waaye bu fekkee gëmoo ko defoo ay ndigalam bàyyiwoo ay tereem ah yàlla nee na daal alal kaafirina gayru yasir mu ne daal yombal xiyaam du yomb ci ñi nga xamante ne mooy kaafir yi mooy ñu weddi yàlla daal di commencé nag di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam aaya bii ñuy bëgg a tudd nii muy darni wa man xalaqtu waxidan wa jaaltu lahu maalan mamduudan wa banina shuhuudan wa mahattu lahu tamhiidan thumma yatmau an azida kalla kaana innahu kaana li ayatina anida aaya yi mi ngi wàcc si ki nga xamante ni moom la ñuy wax al walid ibnul mughira walid ibnul mughira dafa dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala mu fekkee fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jullee moom mi ngi bokkoon ci ponkali Quraysh yi bi mu demee mu daal di dem déglu alquran bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàng bi mu ko dégloo mu xam ne ah alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàng de lii alquran dëgg la mu daal di ñëw si ñi nga xamante ne moom mooy waa Quraysh mu ne leen man de tey alquran bi ma dégg ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne loolu du waxu nit du waxu jinne du waxu malaaka lii ma dégg waxu yàlla rek la mën a doon mu ne te xam ngeen ni day amul kenn koo xam ne moo ma gën a mën a way wala ma xam fa ñuy wayee wala ma xam baati arab yi luxa beeg yépp balaaxa baag amul ku ma ko gën a xam mu ne waaye lii Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi du waxu nit bu mu waxee loolu Abu Jahlin ak ay moromam daal ne ko ah yow daal yaay booyu Muhammad fi ñu toll nii dangaa weddi suñu yàlla yi dangaa bëgg a dem ci Muhammad rek xamoo noo ciy demee moo tax ngay wax wax ji nga xam ne ngay wax waaye Muhammad mii sallallahu alayhi wasallam lii muy wax nii du daara yow daal yow moom dangaa nekk koo xamante ni rek nar ngaa weddi waaw daal di koy commencé minimiser xas ko doyadil ko te xam nga arab yi dafa amoon ab rëy bu nekkoon si ñoom bi nga xamante ni loolu wax na ko wax na ko nag mu daal ni ah en tout cas daal li ma leen mën a wax mooy wax jii nga xam ne moom laa dégg ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu wax ko wax ji day ci kaw gi lu meññ la maanaam lu rafet la lu naat la suuf si suuf wax ji tamit lu am solo la lu mel ni dafa mel ni rek wax joo xam dafa neex daal li muy wax boo ko dégloo bu dee wax dafa am kaw ak suuf si kaw gi lu meññ la lu naat la ci suuf gi lu neex la mu ne kàddu gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax day féete kaw rek waaye dara du ko féete kaw keneen mënta indi lu mel nii ba mu waxee loolu nag ba ñu xas ko nag ne ko yow dangaa bëgg a gëm Muhammad ci la nag dem nag xalaat mu ne may leen ma dinaa leen tontu mu dem nag xalaat xalaataat daal di ñëw nag daal ne ah man daal xalaat naa ne daal lii moom waxu doomu aadama kese la te xam naa ne tamit lii di waxu yàlla waaye waxu nit la waaw man daal xalaat naa ba xam ne lii daal moom waxu nit la yonent bi daal moom ab jabarkat la kese moo tax yàlla di ko tontu yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam zarni bàyyi ma wa man xalaqtu waxidan ak kii nga xam ne mooy walid ibnul mughira nga xam ne man maa ko bind man yàlla man kese ba ma koy bind kenn fekkewul kenn jàppalewu ma ci kenn mayuma toq ndox wala suuf man maa bind doomu aadama si kenn du ma si jàppale waxiidan man kett man dong maa ko bind wa jaaltu lahu maalam mamduudan yàlla mu ne ma joxal ko alal ju ñu tàllal ñu ne li mu yoroon ci alal kenn xamul nu mu toll alal ju baree bari ju dég jéggi dayo la ko yàlla mayoon moom Walid ibnu Mughira mi wa banina shuhudan nee na ma may ko ay doom yoo xam ne ñi ngi fekke doom yoo xam ne ñoom ñëpp a ngi dund di fekke lii nga xamante ni moom lay wax nii ak lii mu may wax nii wa mahattu lahu tamhidan yàlla subhanahu wa taala mu ne ma tàllalal ko ak tàllal ci lépp loo xamante ni préparé ko lépp ba mu baax amul dara loo xamante ni manqué na ko moom Walid moomu lépp loo xam ne dund gu neex la rek préparé naa ko defal ko mu ne summa yatmaw an azida te teewul sax mi ngi bëgg ma dolli li ma ko defal li mu bari bari mi ngi bëgg ma dolli yàlla ne kallaa déedéet gis nga aay bi nee nañ bi mu wàccee ba yàlla ne kallaa man de duma dolli nee nañ ci la alalam commencé di jeex di jeex ba bi muy dee faqiir la doomam yi nekk ñoo xamante ni keroog la gëj a am doom ci kaw suuf amaatul beneen doom ba pare lépp lu ko yàlla mayoon dafa mel ni daf ko nanguwaat mu mujj nekk koo xam ne ku torox la ku ñàkk la ba mu wii di boromam ndax yàlla daf ne kallaa duma ko dolli de ndax lan innahu kaana li ayatina anidan mu ne ndaxte kii de dafa de dafa nekk koo xam ne dafa du mooy suñu aay yi dafa féttéerlu bañ suñu aay yi dafa nekk koo xam ne nanguwut a dégg suñu aay aay yi anit mooy koo xamante ni xam na ne lii dëgg la waaye dafa bañ moom xam na ne lii Muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam mooy dëgg waaye dafa bañ yàlla mu ne sa urhiquhu saudan dinaa ko sotti façon mbugal boo xam ne bu metti lay doon kon kooku yàlla ni mu ko tëkkoo metti na lool sa urhiquhu saudan la yàlla wax mu ne dinaa ko sottil mbugal boo xamante ne mbugalu saud la bu metti am na ñoo xam ne dañu mbugalu saxut boobu yàlla daf koy mbugal ëllëg yawmal xiyaam ci doj boo xam ne bu kawee lay doon day jàppandu par force dugg ci safara si pour yéeg ci kaw doj bi te su jàppandoo loxo yi lakk ba seey yàlla daal di koy defal yeneen lakk mu daal di nekkaat koo xam ne dafay yéegaat am na mu fassirin yoo xam ne noonu la ñu ko firee yàlla mu ne innahu fakkara innahu fakkara wa qaddar dafa dem xalaati bi mu toogee xamul li nga xamante ni moom la war a tontu dafa dem xalaat bi mu xalaatee wa qadar mu daal di dogal ci boppam li mu war a wax li muy wax nii lépp ay inventation la moom moo ko inventé fa qutila kayfa qadar yàlla mu ne reyees na ko loolu façon waxin la ci arab fa qutila kayfa qadar moom day reyees na ko ni mu xalaatee ak ni mu dogalee li nga xamante noonu la war a wax summa qutila kayfa qadar ñaari yoon la ko yàlla baamtu ñu ngi jégalu mu ne summa qutila topp reyees na ko kay fa qadara ni nga xamante ni noonu la dogalee li mu war a wax dem togg ay waxam ràbb ko ba mu yaakaar ne lu jub la mu door a ñëw summa nazar mu daal di taxaw nag xool nag ñi nga xamante ni mooy waa màkk yi ko doon xas ne ko dangaa bëgg a topp muhammad sallallahu alayhi wa sallam summa abasa wa basar mu daal di piis kanam gi xaw a mel ni kuy ngelaju kanam gi noonu summa adbara wastakbar topp mu wane ginnaaw nag mu daal di dam wane ginnaaw daal di rëy rëylu moom xam na ne li mu dégg dëgg la de waaye ñëkkal na kanam gi biiñ fii ndamu fii ah daal di xalaat war a wax nag lan la wax fa qaala in hada illa sihrun yusar mu ne dëgg-dëgg lii yonent bi salaa sallam wax daal nekk lu dul gisaane njabar goo xam ne dafay jeexital ci xol xolu doomu aadama yi lii daal muy wax nii du waxu yàlla du waxu dara waaye lii njabar la yonent bi salaa sallam dafa njabar doomu aadama yi in hada illa qawlul bashar mu ne lii de nekk lu dul waxu doomu aadama yént bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax nii doomu aadama rek moo ko wax waaye moom kenn wax ko ko dul nit yàlla mu ne sa uslihi saqar të tëkk na ko ñaari yoon ne dinaa ko mosal li nga xamante ni mooy safaraw saqar saqar mu ne dañ ni yàlla safaraw saqar nu muy mel mu ne wama adraka ma saqar lan moo la xamal lan mooy saqar saqar day laa tubqi wala tazar du bàyyi dara te du desal safar saqar yàlla mu ne safara su metti la su tàng la soo xam ne bu ñu si soobee nit ki rek yax yi de yax yi mooy feeñ yàpp bi moom dafay seey laa tubqi dara du des si yaram bi wala tazar te du bàyyi dara dara du des dara du bàyyeeku dalay simmi daru yàpp bi te xam ngeen safara mbugalam lu tax mu metti yàlla mu ne bu fekkee mbugal naa leen ba seen yaram bi ñor dama leen di remplacer yeneen der bu der bi ñoree dañ lay remplacer yeneen der moo tax mu metti yàlla mu ne saqar boobu lawaaxatun lil bashar dafay ñori deru kanam soo ko jegee rek sa deru kanam gi moom dafay laawee ko tegu fee dafa la dafay laawi li nga xam ne mooy sa jëmm ji sa yaram bi bachar alayha tisata achar mu ne te kaw safara soosu juróom-ñeent nit juróom-ñeent laa fa teg juróom-ñeenti malaaka bi yàlla wàccee li ñu daal di ko ñoom ñoom yéeféeri Quraysh yi ñu ne waaye yàlla safaraam si li muy rëy rëy tëkk gi muy tëkk doomu aadama yi li muy rëy rëy moom juróom-ñeenti malaaka dong la fa teg Abu Jahlin daal di oote daal ni yéen kenn ku nekk si yéen ay jàmbaar ngeen yoo xam ni mën ngeen a jàmmaarloog fukki ponkal dadu ñu ne ko waaw ñu ne mën nañoo jàmmaarloog fukki ponkal mu ne kon bu yàlla indee safaraam suuf si ndar ñoo lakk kenn ku nekk ci yéen day jàkkaarloog kenn rek moom lañ leen di bàyyee rek mu faagaagal fukki yooyu nga xamante ni moom la yàlla wax na ñoom ñoo ñuy xaar safara yàlla mu ne waaye wa ma jaalna ashaaba annaari illa malaikatan wa ma jaalna iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru mu ne man day defuma waare safara asxaaba naar ñi nga xamante ne mooy malaaka yooyu ma teg leen foofu mu ne defuma leen lu dul ñu nekk ay malaaka ñooñu ay malaaka lañ de te te sa win lim bii nga xam ne moom laa lim feeñal ko muy tisante achar fukk ak juróom-ñeent yii yàlla mu ne defuma ko lu dul mu nekk ñeel pour ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla su ko defee ñu xeeb xeeb lim boobu yàlla lim dañ koo xeeb na loolu dafa ndaw yàlla mu ne li yastayqina alladina uutul kitaaba ngir mu mun a waaru ñi nga xamante ni dañ leen a joxoon téere ñu jiitu woon muhammad salaa sallam waaye tamit wa yazdaada alladina amanu imaanan lim bii day dolli ñi gëmoon yàlla do gëm yàlla xam ne yàlla bu doon benn malaaka la fa teg sax lu mu sant lu mu ko sant dina ko def te lu mu bëgg dina ko def si ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaam ñi yàlla mu ne wala mu ne walaa yartaaba alladina utul kitaaba wal muminuuna wala yaquula alladina fi qulubihim maradun walkaafiruuna maada araada allahu bi haza masalan yàlla subhaanahu wa taala mu ne te du am sikk ci ñi nga xamante ne dañ leen a joxoon téere avant muhammad di ñëw ak jullit ñi ñoom amuñu benn sikk sàkk si ne yàlla lii nga xamante ne moom la def moom dañ koy gëm nañ ni juróom-ñeenti fukki juróom-ñeenti malaaka yooyu mën nañoo def ndigalu yàlla te juróom-ñeenti malaaka yooyu yàlla dafa def yeneen suuf malaaka yi seen suuf ñoom ñooy chef yi rek ñoom ñooy chef yi waaw fukk fukk ak juróom-ñeent yi kon ñoom ñooy chef yi waaye ñoom kenn ku nekk amaan nga say malaaka yoo xam ne dangay topp sa ginnaaw yàlla mu ne wala yaqul alladina fi qulubihim maradun wal kaafiruuna maza araada allahu bi haza masalan mu ne waaye ñi nga xam ne seen feebar seen xol yi dafa feebar feebaru naafeq muy yéefar yi ak naafeq yi ak ñi nga xamante ne ñooy kaafiruun yi ñoom de dañuy naan lan la yàlla namm ci lii misaal yàlla lu tax mu naan juróom fukki malaaka ak juróom-ñeent la fay teg lan la yàlla namm si lii yàlla mu ne kadalika yudilu llahu man yacha comme nii da la yàlla di réeralee ku ko neex wa wa yahdi man yacha yàlla tamit day gindi ku ko neex ñi gëm moom yàlla xas nañu gëm rek lu yàlla wax dañ koy gëm waaye ñi réer ñoom réer nañ yàlla moom si coobareem réer nañ ñooñu su ko defee nag lépp lu ñu leen wax duñ ko gëm yàlla mu ne wa ma yaalamu junuuda rabbika illa hu mu ne sa li nga xamante ne nii wa yahdi may kazalika yudillaahu wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa yàlla mu ne sa soldaari boroom yi malaaka yooyu kenn xamu leen ku dul yàlla illaa hu moom rek moo leen xam wa maa hiya illaa dikra lil bashar mu ne te lii nekk lu dul fàttali rek jaamu yàlla yi doomu aadama yi ne leen yowmal xiyaam dina ñëw ay malaaka dinañ taxaw ci bunt bi war a dugal ñi war a dugg safara ñu dugg safara kon lii fàttali rek la moo tax man yàlla ma wax ko waaye wàññi bi amu ci solo li am solo mooy gëm gi ndax su ma waxee di ngeen ko gëm wala du ngeen ko gëm loolu rek mooy li ci am solo mbokk yi ñuy déglu ak di ñu seetaan lii lañ leen indiloon tey ci suñu tafsiru quranul karim muy suratul mudassir di ñaan yàlla subhaanahu wa taala musal ñu ci weddi yàlla ak réy-réylu ak bañal borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla musal tey nag ñi nga xamante ni moom la ñu may suñu tafsiru tey bi mooy waa diaspora bi képp ku nekk bitim réew rek yaa ngi ci tafsir bi di jël ko nag teg ko ci loxo sama sëriñ boobu sama xarit Doro Silla ak ki nga xamante ni moom mooy sëriñ Mor Seck soppee Zeynab Fall ak ki nga xamante ni mooy sama doom di sama xarit Mouhamed Ahmed Cissé ak képp koo xam ne rek ñoom Makhtar Gueye képp koo xam ne yaa ngi ci diaspora bi di ñu déglu rek tey yow la ñu may tafsirul quranul karim bi di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.